nuyu nañ leen mbokk internet yu bàyyi xel sn xibaar point com ba tey ñu nga xam ne ñu ngi koy amal ci màggalu Touba gi lépp rek ngir waajal 18 safar mu war a nekk le fan ak juróom ñett ci weeru wolof mu war a nekk alxames mbokk yi xam ngeen ko wax màggalu Touba da nga wax mbirum dem ak dikk muy mbirum transport rawatina nag fii nga xam ne moom mooy Touba Touba nag mu nekk parti boo xam ne à chaque fois saa bu màggalu Touba dikkee borom sereet yi borom oto yi ñëpp ñoom ñooy ñëw fii samp fii ñu ko ngir commencé fee dawal lépp rek ngir fas yéene tubb si yi nga xam ne mi ngi ballee fi nga xam ne moom mooy Touba mbokk yi nag loolu moo tax tax ñu ñëw si arrêt sereet yi ngir fas yéene def ak ñoom reportage sereeti gan yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo jóge dëkk ak dëkk ñëw fii lépp rek ngir fas yéene jël si xéwal gi nga xam ne mi ngi fa ngi ball fi nga xam ne Touba ñu fas yéene ak borom sereet yi yan jafe-jafe moom la ñuy dund et puis tamit métier mi ñu ne nga xam ne moom la ñu nekk kañ la ñu commencé ñëw Touba loolu lépp fii lay xew mooy snxibar.com da ngeen di teg seen baaraam foofu ngeen topp ma ñu dugg ci biir waxtaan ak borom serete yi nangu siyaar waay tur bi nan la Suudu Jaañ la gan nga ci dëkk bi waaw de waaw gan njone njone la gan laa jóge ñëw ci dëkk bi euh, kañ nga ñëw ci dëkk bi man samedi samedi samedi pas samedi laa ñëw tey nga yor sareet nga ñëw ci dëkk bi waaw waaw man de maa ngi daw maa ngi daw diggante corniche ak garage Dakar waaye yenn saa yi ma jaar euh, garage Dakar jumaay ji waaw waaye yoon bi de moom am na jafe-jafe loolu ndox mi moom ndox mi bari na gaa yi gi xaw nga xaw nga lii 4000 lañ ñu koy 4000 francs ah, waaw waaw commissariat waaw commissariat bi la de métti na lool sax 4000 lañ buñ la jàppee kay dañ lay tekki moom ah. waaw loolu daal mooy affaire bi <laughs> si déedéet ñu waaw commissariat bi waaw commissariat bi moom affaire bi lool moom ci gan yi moom avant ngay agsi sax avant ngay agsi sax doo liggéey sax ñu jàpp la waaw Diourbel laa jógee ah, tey bi nga bi nga ñëwee ci dëkk bi yan jafe-jafe ñi moo leen gën a sonal fii. non jafe-jafe moom wax naa ndox mi rek. ndox mi ak yoonu naqari daal moom. moo ñu gën a sonal moom. man Mamadou. gan nga ci dëkk bi. waaw fan nga jóge ñëw fii. man maa ah, euh, bi nga ñëwee ba tey euh, ba amoo leen benn jafe ci yoon bi ak xar. xanaa ticket yi ñu ku leen koy daggal. ah wax ne waa mairie la te gisuma waa mairie liggéey fii tous. ñaata ñaata ñaata lañ leen koy daggale. 4000 lañ koy 4000 lañ koy daggee. 4000 te yoon yaa ngi nii naqari bu bëgg a dee. benn suur rek. Ah? bu surna bi jeex la. maanaam bu magal bi jeex lépp. journée ah, ah ba magal gi jeex lépp que lépp 4000 ah, la. waaw kon ni ngeen a jàpp daal loolu dafa métti loolu. métti na kay. waaw waaw taxi yi moom am na fi ndax parce que dana nga fay 4000 francs waaw 4000 francs daal lan lay laaj. boo ko fay ñu teg sa mm-hmm. waaw loolu dañ leen waa commune commission bu Touba lan wax. waaw commune bu Touba. waaw policiers yi sonalul leen euh, non non policiers yi wax dëgg yàlla moom ñi ñuy liggéey moom normal na ndax boo ñëwee dañuy bàyyi par étape lañu dañuy bàyyi ñi jàll ba pare après ñu bàyyi waat ñi ñuy jàll. réseau Kaffrine. bi ngeen ñëw ba tey yan jafe-jafe ngeen di dund ci dëkk bi. ci dëkk bi daal gars yi waa Macky Sall yi policiers Macky Sall ñoo ñu fi sonal dañuy daggloo ay 4000. ak yooyu ñoo leen sonal. waaw lu leen di daggloo. 4000 francs. 4000 ku leen koy daggloo ñoom. ah loolu da lañ wax ñu ne waa xaw ma waa mairie bi la xaw ma pour droit bi quoi pour droit. boo ko fayut lu ñu tekki la affaire yooyu. Ah. loolu daal moo fi nekkagum jafe-jafe loolu daal moom boo ko xëyee moom duñ jot ak dara ah, bu xawoon a oyof moom dana gën taw féexe bu baax 4000 lañuy laaj man maa ngi daggaguma ko sax xam naa bu ma gars yi jàppee du baax si man waaw ñu ngi tuub di jégalu baax baax ah bëgg na maa dagg de waaye affaire yi daa matagul quoi daa matagul waaw tey laa door tàmbalee liggéey nag waaw. dëkk bi xat na tooy na fi mu ne nii moom sareet yi moom fi mu ne nii neexagul waaw non amul jafe-jafe ci fas boobu amagul jafe-jafe waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw. ok merci. mu ngi dox ma wax de mu ngi dox xanaa fas yéene jóge ci nawet bi xaw na wu doole yooyu daal. xataa bi daal moo ñu naqar moo moo moo ñu sonal moom. mais waaw client yi moom ñu ngi ñëw bu baax moom. jàpp ngeen ne daal ma dina ma. Ah, wax dëgg yàlla ñu ngi ñëw bu baax xanaa tàngoor weeg yooyu daal pour fas yeeg yooyu. mooy problème bi daal. direct ci fas yi. Hmm. maa la wax loolu. mais client yaa ñëw bu baax daal. waaw bu baax fii de moom ma allah. alhamdulilah fii moom am na client gis nga situation bi sax. kenn du la ko wax yaakaar na merci beaucoup ngeen jëf mbokk internet yi doon bàyyi xel sn reportage bi la leen jëlaloon si sareet yi nga xam ne ñoom ñooy gan ñi gis ngeen li nga xam wax nañu ko muy jafe-jafe li ñu gën a jooytu 4000 yi nga xam ne daggaloon ko jëm moo nekkoon si kaddu gi caméra bi Cheikh Fa réalisation équipe technique bu biir euh, rek ñi lay di la jox leen di jamono ngi jëm jannatu ngeen jëf